mbokk yi xarit yi yéen ñi seetaan yéen ñi safoo seen site 28 pro. asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne yéen a bëggee seen bi nga xam ne seen 28 pro. 53210 test. mbokk yi seetaan ci seen site 28 pro tv point com mbokk yi ñu ngi am mbégtaan ak yéen ci seen ganu campagne. Euh, chaque année dañuy dem ci benn dëkk dajoo dajoo fa pour euh, gën a miinante suñu biir mais aussi dimbale ñu fa nekk ci lu ñu ñu am ci ci lu ñu am ci lu néew bon ba ñuy ñëw bi ñu waxoon ne bu ñëwee ak kon euh, dañoo tombeek jamono seddaay ku nekk na am lu yor lu baax mu andi ko pour ñu jox ko xale yi donc ñëw nañ fii ñu ngi daal fii ci école Koumba Nding Sonko ba ñëwee ba tamit jéemu ñoo tànn benn daara dañoo ne nañ xool bu daara bi fu gën a jege rek waaw ci laa laaj directeur bi mu yabal ñu mu ne ñu am na daara ñu nekk fii moo tax démb ci guddi ci laaj ñëw doxantu ba fii euh, gisante ak yow waaw yàlla lu muy def man déggoo naa sa tur sax avant waaw ba ñu démb nañ xaw a saafonte noonu donc looloo taxoon andi woon nañ quelque loo xam ne néew na xeeb nañ ci lool nag xeeb nañ ko lool nag waaw ci ay yére ñu sàkk woon ci euh, mu àgg ci ndong daara yi donc c'est c'était juste ça loolu moo woon suñuy suñuy tànk euh, di leen ñaan ñaanal di leen ñaanal yàlla ci liggéey bi ngeen nekk yàlla dimbali leen ci yokk leen ci kàttan yokk leen ci mën-mën mais aussi euh, li ngeen seen njort fu ngeen ci bëgg àgg yi ngeen àgg àgg fa ak jàmm ñu nit ñuy sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu lu ñu mën ren déwén mu ëpp ba pare euh, mu bokk suñuy suñuy suñuy euh, malanu jëf yàlla gis ko xool ko xool bu rafet te nangul ñu ko donc loolu moo taxoon moo newoon suñuy ta li ñu boole kuréel la goo xam ne dafay xettali doomu aadama gi nekk ci jafe-jafe waaye tamit di yëngu ci li nga xamante ne nii mooy ñi sàmm xale ngir seenu nekkin ñoŋ te gën a baax bii nag nekk juróomeelu yoon lu mel nii ñu koy def di dem ci ay dëkk di fa daje waaye bii mooy ñaareel yoon ñu dem ci daara fekk xale yi am lu ñuy soxla ci lu ñu war a jëfandikoo ñu jël suñu ñax suñu am am ak suñu man-man def ko ci ci kaw loolu ci lañu ñu waxoon ne bu ñuy daje mbuur kenn ku ci nekk ci ñun ci jamonoy sedd lañuy nekk bu nekk xam ne sëriñ daara li boot ci ginnaaw am dafa bari te bu sañoon daaram gën a ñoŋ ci daara yi kon nañ jël suñu ñax ut ay yére indi ko jox ko sëriñu daara bi jàppale ko ci ni muy yore gone ci loolu ci la ñu jóg tey ji ñëw fii di leen xamal ne lii ab benn acte la ci acte yi ñuy def te incha dinañ koy gën a faral di def dañu ñaan yàlla aussi mu may ñu loo xam ne bu ëllëgee aussi dinañ fi gën a dellu si def lu ëpp lii yàlla mën na ko yàlla nañu ko suñu borom defal ndax suñu yéene romb na lii ndax dañuy wax ne jëf ju baax du tuuti ba jëf jëf ju baax nu mu toll rek rëy na kon lii lu ñu xeeb la di ñaan gone yi nga xam ne ñoo nekk fii suñu borom def leen ëllëg ñu nekk ay mag ñu am ñam ndax gone tey mooy doon magum ëllëg ku nekk suñu ñëwee nekk fii jaar nga ci gone tey nga nekk mag ak niveau de responsabilité boo nekk ci àddina bi kon xale yi ñoo jar a sàmm jar a toppatoo jar dimbale loolu moo ñu taxoon a jóg tey moo tax ñu ñëw fii ngir jamono ji nga xam ne xale yi ñu ngi toll ci seddaay ñu dimbal leen ci ay yére ñu koy mën di sol mën a jàngar jàmmaarloo ak loolu donc nga gën ñu ñaanal aussi suñu ànd bi suñu gën koo dëgëral li ñu def suñu borom gën ñoo kàttanal bañ gën koo man donc ci loolu laay tëjee di sant ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ma jiital ndax kenn ku dañuy wax ne bu dara jiitoo rek ñu topp ci ginnaawam la kon ñoom ñi buñu amee ndëgër laay ba mën a def lii du kenn ku dul ñoom loolu ñuy jël yëpp leen ko delloo di gën a sàkku ay ñaan donc yàlla na suñu borom gën a dëgëral taxawaay bi gën a yàggal fii ci kanamu xale yi ba li nga bëgg ci xale yi suñu dimbali ci lépp sotti asalaamaaleykum wa rahmatulah di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye di leen ñaanal ci àll bi ngeen ànd ànd boo xam ne lislaam rafetlu na ko lool ndax lislaam boo ci génnee dimbalante rek dara du ci des kon seen yéene bi yéene bu kawe la te lii ngeen def nii yàlla da ciy ànd ndax yàlla kese moo tax ngeen daje te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne allahu thalisu sharikayni ñaar ñu ànd ñu ne te yàlla tax yàlla dina leen ñetteel ñaar ñu ànd ñu ne te kenn warul sa morom yàlla dina leen ñetteel kaay leen nag ñu àndandoo dajale as tuut dimbalee ko ay néew ji doole surtout nag waa daara wala xale xale lu néew doole la ndax xamagul mënagul kon jàppale ko dafa am solo lool te kenn ku ne xam na ne xale mooy yaakaaru ëllëg kon ñu ngi leen di tatagal ci daara ji daara ji nag ak daara yi yaatu yu nekk ci quartier bi Daaru Salaam fii yëpp wax dëgg yàlla ñu ci bëri jokkoo naa ak ñoom tey ndorteel la ñu ngeen ñaan yàlla seen man-man gi nga xam ne yéen ko xeeb yal na yàlla sakkanal leen seen man-man gi yàlla gën a dolli ànd gi waaye dolli leen wërsëg yu ubbeeku ba ngeen am lu yaatu loo xam ne da ngeen ko mën a def lu rëy ci wàllu daara yi lim boo gis benn lay doone su nga jàkka ji ngeen jàkkaarloo benn association moo ko tabax comme yéen ñi mu nekk fa ci Émirats yéen yéen a koy wax xaw ma Émirats si ci français association bi Daarul Birri la la tudd mooy këru mbaax ñoom ñoo jokkaloo ak benn association bu mel ni yéen encore fii ci Sénégal mooy Munazama Ashabil Islamiyya ñele ñooy finance waaye ñii ñooy saytu ba defar kon wax dëgg yàlla yéen li ngeen di def nii nekkul lu tuuti lu rëy la ci yàlla waaye lu rëy la ci dëkkandoo waaye lu rëy la itam ci ponko yi lislaam yi mooy dimbalante yàlla tax kon wax dëgg yàlla bég nañ lool démb sëñ Mamba Girassi Diop ñëw na fi biig wax waxtaan ci ak man ma rafetlu ko lool wax dëgg yàlla ndax lii moom yàlla kese la waaw seen gi man yàlla kese laa gis ndax ay nit ñoo xam ne dañu daje rek wóolu wante bëgg liggéeyal yàlla kese rek ci ngir yàlla kese lii yàlla kese la kon am nañ ci mbégte lool di ñaanal mbooloo mi bu baax a baax président yow yow yaay njilli yow kuy wax yow lay waxal kuy saafante yow lay saafante waaye ku saafante yow wax yow wax na ak ñëpp kon maa ngi jël sama nuyoo ak sama ziyaar ak sama ñaan yëpp di ko teg sa loxo nga yeggale ko mbooloo mi yëpp am nañ mbégte lool ci lii ndax képp koo xam ne yàlla wërsëgal na ko benn dërëm mu bokk ko ak yow ah bu amee million wax dëgg yàlla na ko bokk ak yow kon lii ngeen def nii rafetlu nañ ko lool di ñaan yàlla yàlla na gën a yaatu yàlla na gën a barkeel euh, lii ngeen mën nii ngeen xeeb ko yàlla na dem dem bee ngeen tabax ay kër yoo xam ne di ngeen ciy dugal ay ndongo daara yoo xam ne dañuy jàng alquran karim ndax yàlla kat mën na ko yàlla rek moo mën man moo xam itam am am googu mën na koo tàbbi ci seen loxo yi bi ngeen mën a tabax ay kër ay kër di ci dugal ay xale ak ay ñooñu daara bëgg nañ lool yal na yàlla barkeel jëf bi lu ngeen joxe lu mu néew amu ko yàlla barkeel yal na ko yàlla nangu lu ngeen joxe yal na barkeel li ngeen des yal barkeel bëgg nañ lool wax dëgg yàlla ci tànk yi di leen wax allahu jaazikum kulla xayrin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala mbokk yi xarit yi yéen ñi seetaan yéen ñi safoo seen site 28 pro asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne yéen a liggéey seen bi nga xam ne seen 28 pro. 531 test. mbokk yi ñu seetaan ci seen site 28 pro tv point com mbokk yi ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen clip ganu campagne.